man damaa jàpp ni bu fekkee ni au plus tard mars mille vingt et war nañ def au plus tard élection locale yi kon sept mois avant dialogue bi war naa jeex ba ñu tirer conclusion yi. Mhm. parce que dañuy. Euh, refond de fond six mois avant on doit pas changer les règles du jeu bu ko bu CEDEAO di. non CEDEAO CEDEAO moom fi Sénégal dégluwuñ ko baax na bi ñu bëggee jëlee Yaya Jammeh mais li des ci CEDEAO bi CEDEAO waxee kaaw Khalifa Sall wala Karim wuñ ko. waaw ah. moom kaaw Jammeh rek la ñuy dégg fii CEDEAO. mais dama la bëgg wax nii ñii il faut ñu teel a xam datu élection exacte bi ñu ngi ko war a xam te six à sept mois avant le quoi mhm. il faut ñu xam bu dee par exemple le vingt et un mars la xale bi juddu bi nga xam ne day am le vingt et un mars boobu dix huit ans day am possibilité voter. mais waaw révision bi exceptionnelle boobu foog ñu xam ko parce que dina durer deux mois ak phase contentieux bi. ak délivrance su carte yi. Hmm. kon dialogue bi kon set mois avant presque parce que boo gisee ma ne six mois pour un mois bi am na ay Macky nag man muus na parce que tey bu dialogue bi waxee ba pare mën def ko Mactar Mbow la ma ko waxoon ni ko CNR yi def ngeen ni ngeen def mais li ma ci bëgg laay jël. li ma neex laay jël. léegi moom bu dialogue bi pare ni li ma ci neex laay jël ni lii laay def xam nga léegi parti d'opposition yi piège bi ngeen di tenir. Hmm. dañuy defi recours recours mooy changé waat date ba. teyel ma ko foofu euh, ñu dem def benn page publicitaire dellu si waat moo ma gënal lu ma am parce que Médina sama xol la ne maire Médina mais Bamba ñu ne da ngaa wër école yëpp dafa ay cantine Médina cantine waaw maay maire bi gën a bañ kantine ci àdduna pour wax la dëgg bi ma nekkee maire rek lay créé gu ma maay maire bi gën a bañ cantine cantinisation surtout école école cantinisation école day dagg sama xol parce que ki nga xam ne par exemple mu ngi jaay ay musique di yokk mm-hmm. musique am yaa ngi déranger élève bi mm-hmm. man pour man cantinisation école laa gën a bañ ci àdduna duma ko mus a def mm-hmm. duma ko mus a def kon ku la wax loolu dafa juum man bi ma faloo maire ba léegi créé wu ma cantine acte trois de la décentralisation yenn jafe-jafe la leen jural lépp dara ci baaxul <laughs> dara ci baaxul dama ne la acte trois de la décentralisation <laughs> sonal na maire yu bees yi parce que acte trois bi da ngay xool lan moo ko jur. acte trois bi veille màggal Touba la ñu woo député yi daw leen gaaw ngeen voté ko xam lii nañu sax texte bi am député PS yu commencé braqué wu tànnoon woo leen ñu obligé voté rappelé wu loolu. su ma jul benn 23 décembre la woon xaw ma ñu daal di daw ñëw voté ko mais tey lan la jur tey concerté wu ñu bu baax tey bëgg a parce que acte trois bi li ko jur mooy échec bi amoon ci diggante xeexu euh, Mimi Touré bu bu gañe woon Khalifa Sall dem de Dakar acte Mhm. mais tey comme que fi ñu toll nii Khalifa Sall daa mujj a gagné Mimi Touré fa fallait accusation yi am léegi pour bloquer Dakar acte trois bi ñëwaat nag pour affaiblir Khalifa Sall ci doole ji mu am faf nañu rey mairie ci suuf parce que boo jëlee salaire santé nangu ci Khalifa Sall centre santé jox ko mairie ni yéen koy fay dee nañu salaire santé daa cher. Mhm. xam nga imaginer ku mel ni Grand Yoff nga jox ko sa sami bi ak ak Alioune Ndoye sami bi ak ñum tudd ay ñum Pala Samb seen kii nu mu tudd Gaspard Camara yooyu dafa métti. nga pare ci. yooyu ñu jox la joxuñu la pël. non PMI Médina yooyu yëpp ci lañ bokk ak pël ki am naa fay agent nga pare tamit ñuy femme de charge ko ci xalifa a leen di fay. nga pare ni état civil bi nangu ko ci xalifa tamit yi état civil yéen la te am na maire yu amagul woon état civil. heureusement ñu mutualiser état civil mais li ñu ci jublu woon mooy ne à la Médina ne à Gueule Tapée ne a Dakar day jeex dañ ko dañ ko gaaw mutualiser gaaw mutualiser ko pour mu kon ni am ne à Dakar li ñu ci jublu woon mooy wàññi doole xalifa li mu jur mooy lait à l'école disparaître pavage bi disparaître uniforme à l'école disparaître gym à l'école disparaître projet yu bëri disparaître marché yu bëri yu ville doon bëgg a defar ñu ne arrondissement bee ko moom ville jox ko ko te mujjul am tey kon acte trois bi. mais mais loolu tey su 80 pour cent ngay ngay parce que tey investissement moo am parce que 80 pour cent tey say recette. Mhm. salaire yi ville daan fay nga koy fay. parce que bu njëkk ba la nga nga yoroon matul woon. Mhm. état bi dolliwu la lu bëri. Mhm. parce que ku mel ni Médina fonds d'investissement bi fonds de concours 16 millions lañ lay jox nga ñëw fonds dotation 40 millions lañ lay jox ñu naan sel sel sel man ma dem budgétiser cent et quelques millions ñu jox ma 24 millions te am na commune yoo xam ne dafa am benn critère bu ñu tuddee critère de stabilisation ci sel bi. maanaam ñoom amul crise de déstabilisation mooy nee nañ ku néew doole fa lañ lay renforcer mais li ma ci seetlu mooy ñi bokk ñoom parti la ñu parce que Médina mooy troisième pôle Dakar après Grand Yoff et Parcelles ñoo fi population. mais bu ñu nee ba commune bu nekk raw ñu ñu am 24 millions ñi di am 88 cent et quelques mais je comprends man dootuma jooy gannaaw kenn waa Médina wax naa li ma leen di wax nañu góorgóorlu ñafe ko di nga dégg lu ne parce que tey qui veut tuer son chat l'accuse de rage. ku nekk ci man dañ lay jënd wax loolu ay wax yu ñaaw mais xam nañ ma ba noppi parce que man mosuma jël salaire mais dama koy dajale ba mu bari séddale ko imaam yi sama oto bopp laay dawal dawalu ma oto maire yi mosuma dagg billet avion ci mairie Médina sama xaalis laay daggee billet même mission soxlaalu ma Médina yàlla dimbal na am naa li may am mais Médina moo dee sama xol tey nag loolu am na ñu mu déranger chaque jour nga gis koo xam ne dafa nekkoon ci man ñu jox lañu la waxalal Bamba nangam mais heureusement waa Médina déglu ñu bari ñi. Hmm. li fa am Médina même pavage boobu nga gis Médina loo ci gis. trois cent xale lañ jël ci kër yëpp yu bëree bëri jàngal leen métier bu ñu xëyee ay ay jeunes filles ñu dem usine pavage bi jàng métier bi ñoom ñooy defar pave yi xale yi jigéen yi ngoon si ñu wàcc góor ñi démoulé ko le lendemain jigéen ñi pavé ji woon ñu waat posé waat pavé yi kon amul usine amul entreprise bu gagné marché dafa am ñu gagné marché kenn gagnéwul marché travail en régie la ñuy def doomi Médina ñoo koy produire ñoo koy démoulé ñoo koy transporté ñoo koy pose école yi ñuy tabax mosoo gis entreprise bu ñu jël mason Médina yi la ñuy daje def leen en régie ñooy tabax école Médina yi man du ma jël entreprise de doomu xaalisu Médina laa bëgg waa Médina di ko lekk muy dugg ci kër yi ñu koy sentir. kon bu dee par exemple man wute naa ki nga xam ni dafa jël xaalisu état mooy sañ seen ñooñu rek. bu ñooñu ñooñu waaye ñooñu nga xam ni dañuy loo leen nomee ñu luubal ba ñu luubalee xaalisu état bi nag foog nañu ni nit ñi da nga leen di jënd comme ay xar. mais démb ak bërki démb ba nga amul soxla ci ñoom comme ko faale woo leen woon ñun ñu defuñu boo ñuy indi xaalis boo xam ne leen na leen jógewul suñ son doona bàyyi te moomoo ko di ko xëpp mais dañ koy lekk moo tax man leen ku leen ko jox lekk leen ko ndax munoo dëkk lépp loo jënd moo am TVA lépp loo jënd mu am impôt te may ñu la saraxul ñu bourse familiale ku leen neex lañ koy jox te du ñëw à temps donc bu ñu leen ñëwee xëpp xaalis jël leen ko ngeen xam ne jógewul ci ñoom te xëpp boobu sax mooy tax ñun ñi xam ne sàcc nga parce que banque bañ la namewul poste bi mosoo mën a xëpp te mosoo dimbali kenn ku daanul dem dëj daanoo dem ngénte daanoo dem jàkk levée corps xamu la nagu tam xarit xamu la nagu jàng xamu la nga xëy bis am soxla ci politique xale buy simb sax nga gaaw jox ko xaalis toogaane ko puudaru comme kat bi ñii dañoo dof <laughs> waaw retrouvailles socialiste demoon nga rencontre ji ne tanoo def naa moom mi dund la woon de waaw da nga bëgg a delluwaat parti socialiste non dellu na dellu nga si dellu na man socialiste laa mos a doon mosuma fa jóg sax d'ailleurs jiiñoon nañ ñu dañu saaga Tanor te ñu fekk kaso dóor ñu mais man Tanor taxul woon muy militer man socialiste nee laa man 14 ans laa dugg PS. tey ñoo fa jiitu bariwul de ñu def plus de 30 ans de parti bariwul def naa plus de 30 ans au PS ñu bari bi nekk ministre lañ ci dugg fa ma fekk. ay congrès sans débat yooyu ñu fa ma fekk donc man du ma gën ci PS. donc je pense que milité wu ma ndax nit. fal PS moo dee sama xol PS man te du ma mus a nag pour mu leer sa bopp. doo mos a dugg parti jàmbur PS laay dee mais nag bu dee nit ñuy doxalee. gisoo ci sa bopp gisuma ci sama bopp. mën naa nekk PS sama biir xol terewul ni la ma war a def dinaa ko def ndax man pour ma falu wala ma doon li ma bëgg a doon du ci PS laa ko yaakaar ci samay nit laa ko yaakaar kon PS day des sama xol. du tere ma doxal ni ma bëgg a doxalee parce que am naa mouvement yu am doole mouvement nouvelle vision mouvement yu am doole soldat am naa mouvement mouvement bu ne rek am na plus de deux mille te man sama mouvement yi ñi ci adhéré nekk ci actif laa wax gagné nañu élection parce que Médina élection boo def entre vingt mille et vingt deux mille électeurs mooy am te minimum dina am douze ba treize mille ba quatorze mille. bu leeree te tey non dina leer nag parce que dafa am lu am ba des dañ ma bëgg sàcc parce que néewal doole bi ma leen def dafa metti ñu dem créer Malick Sy moom Malick Sy commune nu Alioune Ndoye la bokk plateau. Mm-hmm, mm-hmm. bokkatul Médina te maire bi bu bokkatul mënoon ko contrôler dem créer benn benn benn centre de vote Malick Sy ni Médina la bokk mais ci àdduna ñu ne la. waa Médina dañuy jéggi seen commune pour voter beneen commune waaye Médina la bokkaat lan mooy pétition bi amoo centre du dëgg boo ñëwee école Bassirou Diagne Gibraltar kenn voté wu fa nga ñëw village des Toupa de Gibraltar kenn voté wu fa nga ñëw Babacar wax champ de course kenn voté wu fa école yaa ngi fi ñu gàññ pourquoi ñu am ay école yu nit mën a voté nga jéggil ñu ba suñu hors de commune ni kaay leen voté fi mais ñun defuñu bi passé élection yi yu présidentielles yi le matin très dégg nga ñu dëkk rëbës ni dañoo dem fañ daan voté Clémenceau ñu leen léegi Médina ngeen di voté école naa ko sàmb te pourtant seen carte Clémenceau moo ci nekk mais fichier naa ko sàmb seen turo ngi ci xam nga loolu fraude la xam nga loolu ñu ngi préparé local yi ñëw mais bu fekkee ne dañoo foog ne damaa dof fi lañ may fekk dinañ ma dégg bala mu yàgg parce que policiers yu baree bare yoo xam ni ordre de mission yi ñu ci bari maa rek si la ñu loolu dañ koy def pour parce que mun sa ordre parce que bu bokkul Médina doo mën a bokk ci contrôle bi ordre de hmm. ton pour def li bëgg def kon te ci sa micro avertir naa leen wax leen ne du jàll. Medina moom na seen xel dal du jàll nañ ci génn seen xel. tiital maag yuuxu la ak saaga la ak menacé la man tàmm naa lépp dama leen a faalewul yàlla rek laa yaakaar. aveneru xalifa Khalifa Sall lan la pour yow.